go, go! jëf mbokki euh, internet yi mbirum Ousmane Sonko di wéy di euh, lëmbe réew mi moom euh, président Ousmane Sonko ba tey rek mi ngi wéy di lëmbe réew mi moom président Ousmane Sonko saa su nekk rek moom Ousmane Sonko ngay daal di dégg moom Ousmane Sonko nag di wéy di lëmbe réew mi. ca noonee moom président Macky Sall nag mi ngi wéy di dund ay jafe-jafe fii ci réewum Sénégal ginnaaw bi nga xam ne nag moom njiitu réew mi la génn na ngir nag ne day inauguré li nga xam ne nag moo di BRT bile moom ma njiiti réew mi nag daal di dund ay jafe-jafe. ginnaaw bi nga xamee ne nag ñi di patriote yile dal di nañu koy sonko riise yuuxoo ko dal di ne rek nañu libéré ki nga xam ne moo di président Ousmane Sonko mbir mu ni mel nag ñoom patriote yile yàgg nañu ko sàkku kii di président Macky Sall nag mel na rek déggu leen ni ki tey jile nag moom président Macky Sall nag dal di nay déggaat lu ni mel ndax nag moom président Macky Sall mile dina wéy di téye kii di président Ousmane Sonko foofu le ca kaso wala rek da koy libéré ndax ñi nga xam ne nag ñoo di patriote yi mën nañu ne nag sénégalais yi ñoo dal sàkku ki nga xam ne nag moo di président Ousmane Sonko ñu dal di koy libéré ca na mu gën a gaawee loolu la nag ñi di Sénégal yëpp mën nañu ne rek ñu dal di koy sàkku ndax rek ki nga xam ne nag moo di njiitu réew Macky Sall dina def lu ni mel am déet ndax rek gis nañ ne niki tey jilee moom njiitu réew mi Macky Sall dal dinay dundi jafe ginnaaw bi nga xam ne rek dal dinay askan wi nag ni ko teeroo ak na nga xam ne noonee la ñu ko Sonko riisee moom njiitu réew mi ginnaaw ba nga xam ne nag dal dinay génn li mu gis nag neexul la dara ndax rek moom njiitu réew mi la jàppoon na ne bu génnee nag askan wi dinañu ko tàccu dal di koy sarxole ca loolee nga xam ne nag dal dina koy amal moom njiitu réew mi la gis na ne nag la nu mel moom amul benn yoon ndax nag dañu ko yuuxoo Sonko riisee ko moom njiitu réew mi ginnaaw bi nga xam ne nag patriote yi la ñu ngi sàkku ñu dal di libéré ki nga xam ne nag moo di président Ousmane Sonko ca na mu gën a gaawee ndax nag ñoom ñu lee ñu ngi wéy ne rek kii président Ousmane Sonko mooy seen kandidaa ci élection présidentielle yi nga xam ne nag moom lañ daal di dëgmal donte nag ña ngi ko téye foofu la ca kaso ba ñoom patriote yi lee ñi ngi ne rek nañ daal di ko libéré nag ca na nga xam ne noonee la daal di gën a gaawee moom président Ousmane Sonko lu ñu mel nag gis ne mooy jàmm ji fii ci réewum Sénégal ndax gis ne nag léegi ñii di patriote yi la nag muy ñu jàmm ñi nga xam ne nag ñoo féete ci nguur gi ak sonkorisation yi nga xam ne nag ñu ngi koy amal saa su nekk